Diop salaamaaleykum mbokk Sénégal ah tey nag boo gisee suñu woote bi li ko waral mooy Equateur dafa ñëw fii ci Méouane bëgg a teg loxo ci ndox mi waaw ah, jàpp na ne nag euh, Méouane du ku ñuy forcé wala ku ñuy dal di ko jël ci ndox mi ñëpp nag dañ ne woon weesu na fex wax naa leen liggéey baa ngi doog a doog ñun nag Sénégal fii li suñu problème mooy sous problème parce que moom moo ñëw ci dëkk bi ak pal andi ko fi moom mu war a nekk un régulateur boo xam dafa war a régler réew mi mais dafa ñëw ci dëkk bii di Mewane commune Mewane bi nga xam moom la yor mais jàpp naa ne mboolem sous-préfet bu fi jaar moo fi ëpp coow te nag mi ngi bëgg a sikk amee ci moom ndam mu jëm am mu am ndam bu ñu leen amee ci moom des fonds mu jàpp ni moom day am des fonds comme moom nag ñaari at wala ñett ko def mu retraité fii la war na jaare amee fi ndam mais nag jàpp naa ni bëggalu loo am ñëwaan bëggalu loo am ñëwaan parce que ay ñett nit yoo am naan wala ñeent bu ñu àndee mën a jaay askan wi lu loo am ñëwaan dem jaay ndox bi ba ma amee robinet léegi sama facture yi doon a fanaan ci kër gi te liñ leen waxoon tey dañ ñoo waxoon nit ñi su préfet daf ñoom menacé woon daf ñu na gendarmerie dina fi ñëw ànd ñoom coupé ndox mi ñun nag daggoon nañ suñu yet ak war a def lépp waaye nag dañ ñoo yar comme dañ ñoo yar mënuñoo taal ay pëlu xaar nañ leen ba léegi ñëwaguñu ñu def suñ li suur nag toog di leen xaar ñun demuñu fenn demuñu fenn ñu ngi toog di leen xaar buñ fi ñëwee bu indi luñ mën a jàmm fekk ko fi jàmm ji nag mooy ñu bàyyi ñoog suñu ndox ñu mën nañ koo doxal ndax 22 francs ñu ngi ko yor suñu forage di dox comme ni nga a ba ñu ñu indil problème yi mooy ñàkk a respecté gi ñu ñàkk a respecté def kayit ji ay weefal yu xamul ñun tuuma ragal ñaan jaral na ma sama bakkan bi ñàkk lu ma def ak ñàkk lu ma xam li ma xam ci réew yi bari na te dama ñëw yokk àndante moom ñi ku doon nelaw ñaan yeewu ñun man na ma koy waaye doo dégg waa ñaan yëpp àndandoo def benn dal xam ne li ñuy xeex xeexalu ma ko sama bopp xeexalu ma keneen dàq leen ñoo koy fàttali waaye nag may laafat ñaan yëpp képp koo xam doomu ñaan nga lii bassin la ndox mi mënuñoo jënd mbaam di yóotu am na xam nañu ndox boo ko ñàkkee ñu rek mu ngi def loolu su fekkee nag ñu koy ñaan su mënee jàmm ñu ngi koy dégg dëkk bi mu defal ñu ko su ko mënul mu takk bagaasam dem ndax